bokk yi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor taseeg bisub ajjuma ci la yoonu murit sosu ñii nag ñoo njëkk a jaayanteeg sëriñ bi Cheikh Adama Guèye Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ Cheikh Massamba Diop Sam Cheikh Abdourahmane Lo Ndaam sëñ Modou Guèye Jëmmooy sëñ Jaaru Assane Ndiaye sëñ Mandumbe Mbàkke Cheikh Amadou Fadiama Niang sëñ Mor Ndiaye Taagaar sëñ Mbàkke Bousso ca Gede amul benn bëgg-bëgg wala benn yitte wala benn xemmanteef wala lenn ju genn jublu pour Sëñ Tuubaa